salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki euh, site internet yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax rawatina fii ci Assalaamy TV di am mbégte di ànd ak yéen ci waajtaayu guddik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di guddik gàmmu ñu nekk fi tey jii ci àjjuma ji yemoo ak fukki fan ci weeru gàmmu. Euh, ngir waajal bis bi nga xam ne moo nekk ci kanam suba di guddik yonent bi sallallahu alayhi wa ñu toog nag ci kër Serigne Touba gi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji jàkkaarloo ak Serigne Amsatou Mbacke mu Cheikh Abdou Lahad mu jotoon ndigal ci Serigne Salihu Mbacke ngir di dundalee guddi gàmm gi fii ci kër Serigne Touba loolu rek lañ bëggoon Serigne bi desuwaat ci ñun ci taarix ni nga xam ne noonu la ko Serigne Salihu dégale woon ba mu agsi ci tey jii ci jamonoy Cheikh Mouhamadul Mountakha. Serigne Fallou ñu ngi nuyu bokk yul yëpp rawatina bokki taalibe murid xanaa di baamu loo xam ni wax nañ ko waxati ci gàmm man damaa bokk ñi xam dañ ko daan nelaw waaw daw ma ko daw ma wéy daw ma daw ma daw ma fokk dama daan tëdd nelaw dérëb li ma ne njàpp nal dañuy woote gàmm waaye dama daan tëdd nelaw bi ma jógee kër sëñ ci daara ji yem nekk sama kër dama tëdd di nelaw naam guddi gi sax daana dem siyaare yi ci amaakinul muqaddas yi barab yu sell yi jàng sama xel daal di waaye jenn jëmmi jamono nag sëñ jox ma ndigal ci <coughs> may gàmmoo fii yaakaar naa ci nekkam gàmmu naa fi ñett yoon wala ñeent yoo xam ne bu gàmmu jotee moo yónnee fii ay ay reer yu bëree bëree bëri Moussa Niang ak Ndiaga ñoom ñoo ko andi fii ay bool yu lim jox ko nit ñi yàlla dogal nag gàmmu gi mujj fi mujj def ma siyaare ko laaj ko ndigal ne ko ndigal li nga ma joxoon ci gàmmu ka sëñ Tuubaa ndigal la nga ma joxoon dañ koy yeesal dañ koy wéel wala dañ koy soppi mu ne ma ndigal lan la daal di ma ne xanaa gàmm gi kër sëñ Tuubaa mu jóg toog daal di ma loolu dañ koy wéyal maa li ci jox ndigal nga ko fay dundal maa faroon nekk tamit te mënu ko ma bëggoon nga wutuma fa kon loolu daal di ma laaj ba xam ñan dañ la fa fekkam ma ne ko déedéet ndax damaa yàqoon ay bokk yu fi ñëw di gàmm ak ne ñan dañ la fa fekk ndekk nit la bëgg a wax ñu fi fekk ne mu ne ko mu ne ñëpp dañ la faa fara fekk ndax foofu la gàmm gi mu mel ne kàddum gu mu jugogee na bi mu fi jógee itam Elaj Baara damaa dem ci moom <coughs> di koy yeesal ni ko sëñ Sall damaa joxoon ndigal may gàmmoo fii ci kër sëñ Tuubaa gi may nag ba xam <coughs> da nga koy wéer wala da koy soppi mu ne waxtaan nga ci ak Sidi ma ne ko déet waxtaanuma ci ak sëñ Sidi kat ndax yaa moom kër ga soo ma joxee ndigal ba noppi nag ma doog a dem waxtaan noonu mu ne ma damaa bëgg lu rafet rek ma ne ko fii dara ñëw bi waaye nag gannaaw yaa moom. yow laay waxal ba noppi doo ko dem ci sañ sëñ Sidi wax ak moom mu ne ma jox naa li waaye dama jàppale mu ne ko jàppale kenn ko jar ndax ko daan digal day daw ma jàppale ci sayir te li ci li ciy dem lépp fàggu naa ko mu ne foog ma jàppale nag moom daal di dama lay jox nag daal di koy noonu na ma ko waxee ci ëllëg sa mu ne ma joxe woon naa nag waaye dama ciy dolli gileem ci boole nag ak gileem noonu la ko doon defee ba jóge fi yàlla na ko yàlla fayal te doole ko leer te gisale ko waajuram yaag sëriñam yu baax ya bi fi jógee tam naka noonu sëñ Sidi Maxtaar wéel ko ñu koy def ba ci sëñ Muntaxa man nag damaa jàpp ni ndigal sëñ Tuubaa mooy comme yoon yu kon ne la ku ñëw rek te loolu ngay kon ne alaaj baar laa ci ma sa ci yeesal ga ndax soppi gu amoon ndax doomi sëñ tubaay jeex sët sëñ tubaay dugg moo taxoon ma tàgg ko waaye lay des nag ñaari seex ba rek laa ci laaj wax moo doon wax ak sëñ Sidi Muxtaar moom sëñ Muntaxa itam seex a moom yaakaar na mu woo ma daal ne ma damaa yéex xam ne que sëñ tubaay ngay gàmmoo ba ma jàpp faa gàmmoo waaye nag damay <coughs> damaa bëgg su fekkee sama gàmmoo fa day yàq sama gàmmoo dara du ma fa gàmmoo ma ne ko sa gàmmoo fa moom day defar gàmm ndax sëñ Saliou ma digal ma di fi gàmmoo te moo ne moo fa a gàmmoo te mënu ko bëggoon ma wutu ko te mënu ko wutu kon nag soo fa ñëwee day mel ni yéene jooju àgg na ndax yow sëñ Saliou sëñ Tuubaa kon kon day mel ni li yéene nësëri sëñ Saliou yëpp àgg na mu ànd ko ko man daaw fii la ko defee bi ñu xëyee ba ay quatre heures matin ñu fii lañ dem ca njàng ma fii ak ànd ko ay bu tarxee bi mu jàngee ba noddu fajar mu ne ma tiyaaba ji yaa ko ndax yow lañ fekk si waaye dañ ànd dem siyaare jumaa ji ñu ànd dem siyaare jumaa ji ren jiitam da ko gën a yeesal ndax daaw nokk xis bi ñoo fi bokkoon nekk waaye ren moom daf leen a jox ba noppi yabal leen ci man ñu bokk waxtaan bi ñu waxtaanoo lépp rafet na lépp dëppoo na ndax bëgg-bëgg benn la jubli benn la liggéey benn la kon war nañ koo mën a ànd ci rafetal te dara du sooxe ñoom nag samay xarit démb lañ te jàpp naa ne njëmbatu Sëriñ Abdou Lahad lañ yoo xam ne moo ko jëmbat sëñ Saliou di ko suuxat lu sëñ Abdou Lahad jëmbat nag sëñ Saliou suuxat ko am sa sañ naa toog ca kër ga bu amee doom tam sañ naa wat ci doom ya gél na loolu sax sañ naa sañ ndax alali bàyyi ma alali sëñ ma di alali sëñ Tuubaa yi bokk ñu ñëpp kon nag bu sëñ Muntaxaa ñëwee def lii dafa delloo buum ca mboy ba walla wattu sa ca ndaa ndax luy benn la te yoon yu yoonu wenn yoon la genn kilifteef la benn dëkk la benn bëgg-bëgg la jubluwaay yi moom mooy mina mina minal xadim ilal xadim rek jógee ci sëñ bi dem ci sëñ bi suñu jëf ak seen suñu yëngu yëpp sëñ bi lor dell kon nag suñ la booleeg ñuy demee noonu dangay ngay rafet njor dalal xel tey ñaan képp ku fa teew wala nga jëf ci wala nga yéene ci sëñ Tuubaa faj sa aju saahirin batin ñi ngi naanal nag ñëpp ku fa teew ak ku yéenee teew te teew wala nga am pas-pas fa li ñuy wax ak yokk akuk mucc akuk jariñu sun borom sun borom defal ko tey ëllëg ci barke Seexul xa wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf. aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf euh, sëriñ Amsatu ci kaddu yi nga xam ne kaddu yu pësteefu la ba noppi itam di kaddu yu wér. di ndigal lu bàyyi ko woon ci Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké mu leeral ne moom moo fi waroon a teew te mënu fee teew te sax teewaay moo di ak teewaayam te di xamle na itam dëgg-dëgg gàmmu mooy fii ci kër sëñ tubaa gi eh, ñuy dem nag ba xalif général des mourides fekk si la fi far ànd ko ak yow loolu kon ak sant yàlla bu baax ñuy xamal bokk yëpp ne kon guddi gàmmu ak bëccëgub gàmmu lépp sëriñ Amsatu da koy yendu ci kër sëriñ tubaa gi yendoo ko ak Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fii sëriñ Tuubaa waaye fi la koy fanaan ba fajar mu ànd ak moom dem ci jumaa ji bu ñu jógee ci jumaa ji yeewi mbooloo mépp ñaanal leen kon rendez-vous bi ci kër sëriñ Tuubaa gi lay doon wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu